noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dina tukki mbokk yi dañuy wéyal rek waxtaan wi nu tàmbali woon ci ndénkaan lu am solo li nu yonente bi dénkoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ndénkaan loolu mu doon ci moytuloo njort lu ñaaw dinu ci moytuloo la yeddoonte waaye di liñutu di luñutu mbirum nit ñi dinu ci moytuloo itam naxante ci jënd ak jaay dinu ci moytuloo iñaanante dinu ci moytuloo bañante dinu ci moytuloo dëddoonte wonante ginnaaw tey nag foofu lanu toll te mooy moytuloo gi mu nuy moytuloo dëddoonte ak wonante ginnaaw te mooy li ñuy wax rek meroo meroo dëddoonte wonante ginnaaw dogoo mooy ñaar ñoo xam ne ku ci ne dafa dog moroom ja du wax ak moom wala du jëflanteeg moom loolu yi nag yonente bi ni mu ko teree ci xadis bi noonu la ko teree ci yeneen xadis yu bari wone na ne it dëddoo dëddoonte ak nit ku dëddoonte ak mbokkum jullitam bu dogoo ak mbokkum jullitam bu meroo ak mbokkum jullitam loola mën na koo xañ yërmande yàlla mën na koo xañ jéggalub yàlla ndax dafa wax moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne bisub altine ak bisub alxames dañuy ubbi bunti àjjana yi bu ko defee yàlla jéggal bépp jaam bu bokkaalewut ak moom lenn képp koo xam ne jaamub yàlla la te bokkaalewut ak moom lenn rek yàlla jéggal ko ba mu des ba mu des ñaar ñu dëddoonte ñaar ñu bañante mu ne ñooñu moom bu ñu agsee ci ñoom yàlla danaan ñii nag bàyyi leen bañ juboo bàyyi leen bañ juboo mooy fii ak juboowuñ rek duñ bokk ci ñu ñuy jéggal ci bis yi dëgg la bokk yi nit mën naa jëflanteeg nit mu jëflanteeg moom anam goo xam ne jaaduwut yellut bu boobaa itam mën na koo naqari loolu lu jaadu la lu dëppoo ak ni yàlla binde nit la kuñ jëme jëflante bu jaaduwul bu rafetul bu jekkul mën na koo naqari waaye nag bu bëggee bokk ci ñi gën bu bëggee bokk ci ñi gën day bañ a topp rekk meram day bañ a topp meram bañ a delloo jëflante bu rafetul biñ ko biñ ko jëme ndax yàlla dafa wax ne jëflante bu rafet ak bu rafetul yamuñ kon yow de fexe bay def bi rafet buñ la jëmee bu rafetul itam bu ko delloo mu ne ku la jëmee jëf jëflante bu rafetul it yow nang ko delloo bu rafet na nga rafetal sa diggante digganteeg moom ba mel ne day sa soppe day sa xaritu benn bakkan waaye nag mu wane ne loolu nag doonut lu yomb ñu mën a muñ rek ñoo ko mën a am yu am cër bu mag rek ñoo ko mën a am yonente bi salaa sallam itam wax ne nit daganul jullit muy wan ginnaaw di dëddu di dogoo ak mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan waaye lu mu ko mere mere mere bu mu weesu ñetti fan bu mu ko weesu mu wax ne bu fekkee meroo nañ ba buñ dajee kenn ku nekk dumooyu loolu wërta weesu ñetti fan wërta am sax waaye bu amee itam nag bu weesu ñetti fan te nee na ki ci gën ci ñoom ñaar mooy ki njëkk a jeexal loola ka ko njëkk a jeexal mooy bu dee dañ daawut nuyoo ka njëkk ko nuyu moroom ja kooka moo moo ca gën doo nga ñaan yàlla kon mu aar nu musal nu ci bañante musal nu ci dëddoonte te ak lépp loo xam ne rek lu jaaduwut la lu rafetu la lu jëkkut la ci ab jëflante di ko ñaan mu defal ñuy waat na ko alaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil nu bunt yiw yi soom nu ci njub mottali sunuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak mujj rafet